salaamaaleykum waa Sénégal euh, ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen remercier yéen journalistes yi ci seen teewaay ñu ngi jéggalu aussi ci retard bi mais xat-xatu jamono rek moo ko waral tey nag li ñu indi woon fii ñun waa COLIDEP collectif pour la libération des détenus politiques mooy euh, jamono ji suñu réew ni mu yëngoo mooy jafe-jafe dëkk bi ñu nekk ci ay fan ba léegi lenn waralu ko lu dul coowalu procès ba nga xamante ne ñaari nit ñoo ko séqoon mu euh, basé wu ca troisième mandat maanaam troisième mandat moo tax réew mi jaxasoo ba indi xat-xat yu bëree bëri bëri ci loolu ñu ci euh, masawu képp ka nga xamante ne euh, ñàkk na ci bakkanam di ci masawu képp ka nga xamante ne am na ci gaañu gaañu ak ñépp ña nga xamante ne yàqule nañ ci donc ci loolu rek ñu leen di ñaan ñu observer une minute de silence pour képp ka nga xamante ne ñàkk na ci bakkanam loolu balaa ñoo commencé euh, euh, conférence de presse bi Ni lay laloo euh, Malik Ngaynde mooy def version wolof bi version française bi Saliou Bokum mon moo koy def ñu ngi waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu presse bi di jégalu également ci retard bi euh, di rejoindre sama camarade Sylvestine ci ñi mu fu jóge ñaanal léegi ñi nga xam ñoo ñaax seen bakkan ak ñi nga xam ne ñoo perte ci ay seeni i marchandise wala seen i kër wala seeni oto ci manifestation yi te seen yoon nekku ci déjà ñun lu ñuy commencé nous allons commencer sur le cas de Pape Abdoulaye Touré bi nga xam ne jàpp nañ ko temps yi d'orgue ko torturer ko xoqatal ko ko photo ko ko photo à son insu jël image à son insu ba balancer ko réseaux sociaux yi may sori ci Sénégal en 2022 man ci sama train ak Sylvestine mi tok ak ñeneen ñu fi de na ñu fi Karim Dauda gay Baye Futa Tampi etc etc japp nañu buntu ministère de l'intérieur en mars 2022 yobbu ñu commissariat plateau japp gi mari Sagna ak ñenen yobbu len commissariat central ñu téy ñu ba guddi jot kenn dégloo ñu ci PV Tok ba mu neex len wo sen autopolice ben fourgonnette bu ñu bâche carrément teg ci ay éléments yu bari ci biir oto bi ñu sol seeni kagul ku dugg rek ñu dóor dañu tey ci commissariat bi je ba ay 23 heures minuit ku dugg ci oto police bi rek ñu dóor ñi ñu woo benn par ñuy génn dañu dugal ci oto bi ku dugg ñu dóor bu mu jeexee ñu daw ak ñun biir Dakar di wëndeelu torturer ñu ci biir oto bi. et je rappelle bien c'est un véhicule de la police qui xam ni amul plaque d'immatriculation moo ñu jël ñii ñu wàcce leen Thiès man ma au milieu de l'autoroute à péage parce que policier bi dafa kenn xaw ma policier la aw mais un des gens encagoulé ci biir est bi dafa ne ki ci wetam nañ ko wàcce parce que gis nañ ni muy nooyee qui euh, dafa sonn nañ ko wàcce balaa muy dee suñ loxo nii la ko et il nous avait aussi menacé wax ni ah yéenay guerrier wu Sénégal ñun nak ñoy torturer ñoy ray sen genre yi ci dëkk bi déggu nañ ko loolu lu ñu dal la du lu ñu raconté euh, yow ak yeneen sa mbokk jigéen yoo andalon ñing la wàccee au milieu de la VDN 3 def na ni minuit passé woon na jigéen yow ngay homme de tenue nga wàcce ñoon ci digu VDN 3 bi nga livrer leen aux violeurs nga livrer len au aux malfaiteurs yoruñ téléphone yoruñu xaliss donc door bi. torture bi xoqatal bi métital bi lu yàgg ci dëkk bi la tey ñu gis niñ def Pape Abdoulaye Touré les images sont là après Khadim soo ko mënee balancer les images sont là Pape Abdoulaye Touré ñu jàpp ko buntu këram muy waaj a dugg buntu këram ñu jàpp ko xëcc ko dóor ko sotti ko suuf tuur ko ndox tey boo leen gisee Pape Abdoulaye Touré defe naa ne seen rongoñ dina tuuru bopp bi yépp ay blessure la dañ ko wat pour mën a def scanner pour mën a xool ndax bopp bi amul hémorragie interne image bu fekkee mi ngi daw ngeen mën ko jëlaale loxo bi gauche dafa damm nii nii nii ñi ngi ñi ngi platé Pape Abdoulaye toure mi ngi ci conditions yu doy waar bi dafa am double fracture donc muy ñetti tabax yoo xam ni mu ngi ci Pape Abdoulaye Touré actuellement les premiers jours bi ñu koy door a jàpp mënul woon nelaw parce que suuf bi ak ndox bi dafa dugg ci nopp yi mënul woon nelaw ñi ko gis mën nañ ko wax ses avocats ak ñeneen ñi ko jot a seeti ñi ko gis balaa muy dem tribunal ak balaa ñu koy tabax mën nañ témoigner papa Abdoulaye Touré ci yan condition la mel waxuñu loolu yëpp mais bët yi boo leen xoolee image yu ñu dégg yu ñu wane am na benn photo xaadim bu dee yor nga ko Pape Abdoulaye Touré mi ngi xoolee difficilement mi ngi forcé pour xool tellement xamatul fu mu nekk léegi ñun ñu ne nous sommes dans un pays de droit buñ jógee ñu ne ñu force reste là à la loi si nous jógee ñu bëgg éliminer ay adversaires politiques si forcer un troisième mandat illégal c'est article 27 ñu ñëpp ñu dafa 2 nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs je le répète tout le temps on n'a pas besoin d'être juriste on n'a pas besoin d'être un avocat wala de de de est extra doué pour comprendre lan plus de deux mandats consécutifs ñu ngi naqarlu kaa boobu bu baax ñu ci kaawu manifestation yi nga xamni genn nañ ci ci ay fan yu neew ñu gis ci ay nervi nervi yooyu ñu jël ay pick-up jox leen ko ci ay vidéo xeyna nekkul ci bii ñu yor xaadim mais di ngeen ko gis ci internet ci ay vidéo ñu gis ni nervi yooyu ñi ngi jóge ko feulé ci siège Benno Bokk ci Mermoz ñu xoolee vidéo bi loolu la wone mais bi manifestation yi jeexee ñu gis police moom it def conférence de presse wane ay image numéro 9 bi je pense que c'est l'homme le plus célèbre de nos jours au Sénégal moom mu yore armam lourd di tirer contre population bi mais ci conférence de presse bi nga xam police moo ko wax vidéo yaa ngi fi ñom ñu ne waji la di contre ñom alors que ñun biñu défé suñu ay ba ci internet bi la il est descendu du véhicule de la police donc ma est-ce que ñun sommes yi ñu sénégalais est-ce que police est-ce que il est invisible face aux forces de l'ordre wala est-ce que nous, ñi nga civil rek parce que je ne comprends pas ku mel noonu yore armam wàcc ci oto police nekk ci seen wet di tiire bu dem jotee mu yéegaat ci oto bi dem ñu def conférence de presse où ñu ko ne waaw manifestant yi mi ngi ne dafa rax contre la police dëgg bu jotee dañ koy wax je pense que ñu ñëpp jàng nañu te duñu ay dof li nga xam ni la information yi police bi joxe c'est à revoir bu ngeen xoolee France 24 daf ko décortiquer joxe toutes les informations ci fin bi eh, euh, journaliste lan lañ wax police li mu wax dafa am ay affaires yu incohérent donc ñun ñëpp gis nañ vidéo yi te loolu tamit ñu ngi koy dénoncer di ko naqarlu euh, ñuy dénoncer aussi beneen nervi yi ci réseaux sociaux yi muy kaaw Anita Diop état bi na si jóg na ci def li nga xam moo war parce que ñi ngi bàyyi un jeu très dangereux di dem tey kooku ñu bàyyi muy dénoncer nit ñi te tey bizarrement ku mu dugal ci réseaux sociaux yi ñu jëli ko ku mu dugal photom ak numéro ñu convoqué ko ku mu wax ñu jël ñu ñu ne dañ koy sonal ñu ngi bàyyi un jeu très dangereux parce que kooku bés bu identité dévoilé lu metti mën na ko dal par rapport ak ay nit te ñun violence taxu ñoo jóg ci dëkk bi dañu bëgg xeexal dëkk bi li nga xam ne mooy yoon sénégalais yi nekk ci jàmm ñu àtte dëgg ñi war a bokk ci élection bokk parce que tension bi yépp ak lii nga xam moo am ci réseaux sociaux yépp c'est lié au troisième mandat, c'est lié au un troisième mandat illégal du président Macky Sall. ñi wara wax nañ wax ñi jok et pour le dernier point ma jeexalee ci ci F24 ñi ngi dégg démba ñi ne préfet woote na ci benn télé de la place di interdit ni interdire les manifestations du F24 c'est-à-dire le vendredi 9 juin ak le samedi 10 juin suba F24 xamaguma lan la ci wax je pense que am nañ réunion ci kanam mais du ma jitu ñom di dinañ ci communiquer mais ce qui est sûr moi, que préfet ñaari raison rek mo meuna tax nga interdit manifestation té ay raisons cumulatives, cumulative non alternative c'est-à-dire ben mënul dem bàyyi moromam notre frère Pape Abdoulaye Touré da koy wax chaque fois tey dama ko koy waxal Bo amé absence de force de l'ordre ba paré nga am réel trouble de menace à l'ordre public préfet bu boba bu la nexé nga téré manifestation yi mais bu féké ñaari raison yoy dajewul amulo droit amulo sañ-sañ amulo maqaama interdire manifestation bi nga xamni c'est un droit constitutionnel li tax nga interdire ñun gisaguñu un arrêté mais lolu duma ci sori F24 dina ci ñew en parlant de F24 avons annoncé l'intégration du collectif COLIDEP au mouvement F24 cest à dire F24 nous avons xeex li nga la libération des détenus politiques ñun COLIDEP ñu yàgg ci terrain tous les détenus politiques du Sénégal Nous ñi koy xeex nous leen rejoindre parce que l'union fait la force donc nous avons annoncé que COLIDEP le collectif COLIDEP rejoint F24 ci xex bi parce que mbooloo mooy doole l'union fait la force euh, je pense que loolu la amone ci ay point yu ma war leral damay bayyi sama camarade Saliou Bokoum ñew def la version française bu ñu jeexalee je pense su fekké dañuy jël question mm-hmm. waaw voilà su fekké am na ñu wax après jërëjëf. Bonjour tout le monde. Déjà, je voudrais m'incliner sur la mémoire des victimes des manifestations de juin 2023. Aussi, ma pensée va vers les familles, leurs familles éplorées, les personnes blessées et les personnes qui ont eu à subir des dégâts au niveau de leur lieu de travail. La situation de ce pays devient de plus en plus grave, elle devient de plus en plus dramatique. La dernière fois, lorsqu'on vous a convoqué ici, on parlait des 400 détenus. Aujourd'hui, entre aujourd'hui, on vous reconvoque ici pour parler de la situation du pays. On est passé de 400 détenus à plus de 600, 700, voire 800. On ne connaît même pas le nombre exact des détenus. Par ailleurs, en dehors de cela, on se rend compte que dans ce pays, les actes de torture commencent à se pénaliser. Le, dernier exemple, c'est celui de Papa Boulaye Touré, qui est un membre du COLIDEP, mais aussi membre du F24. Il a été arrêté durant la nuit, torturé. On tout le monde a vu les photos. Il a été pris en photo et ensuite les photos ont été mises sur Internet. Le but de cette opération était seulement de l'humilier. Mais malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Les gens ont pris conscience ou commencent à prendre conscience de ce qui se passe au Sénégal. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe au Sénégal. Mes camarades ici présents ont été victimes de cela. D'autres personnes ont été victimes de cela à chaque fois, les cas de torture deviennent de plus en plus fréquents, Et on dirait qu'aujourd'hui, il y a une impunité totale. Où est-ce qu'on en est avec les morts, l'enquête sur les morts des événements de mars 2021 Jusqu'à présent, on ne sait pas. Qui sont les responsables Qui a tiré D'où viennent les armes Il n'y a eu aucune enquête, il n'y a rien eu. On dirait qu'il y a une banalisation de la violence au Sénégal actuellement. C'est comme on dit, l'État a le monopole de la violence légitime. Mais la violence légitime ne doit pas être un moyen de pouvoir mater son peuple. Cela va juste être un moyen de pouvoir contrôler ou bien de pouvoir canaliser les populations. Mais malheureusement, actuellement, c'est pour mater la population que la violence s'exerce. En dehors de la violence, on observe aussi que les détentions, les retours de parquet, les arrestations à tous azimuts, il suffit juste de faire partie d'un parti, qu'on soit fiché ou qu'on soit dénoncé, pour que la police vienne vous chercher ou qu'on vous convoque et qu'on vous envoie euh, en, en retour de parquet. Déjà, vous allez subir plusieurs retours de parquet avant qu'on vous notifie que vous êtes en détention. Il y a combien de détenus aujourd'hui au Sénégal Donner son opinion est devenu un délit. Avant, les puissants pouvaient donner leur, opinion tranquillement, sans pour autant qu'il y ait de problème. Du temps de Watt, le, président, le président il a tout entendu. On a même traité ici de fantomas. Mais pourtant, il n'utilisait pas, la police pour pouvoir régler des contentieux personnels. Mais aujourd'hui, il suffit de porter une critique à une autorité de ce pays pour se retrouver en prison facilement et rapidement est-ce qu'on en est Le Sénégal était un exemple de la démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est Où est-ce qu'on en est Tout le monde nous donne des leçons de morale, alors qu'avant, c'est nous qui donnions les leçons de morale. En dehors de ça, on, toujours dans le registre de la violence, on note aussi l'apparition des nervis. Des nervis qui se trouvent à, euh, côté des policiers, qui sont eux qui ont la vocation à maintenir l'ordre. Des nervis qui sont armés et qui, et qui utilisent des 4x4 qui appartiennent parfois à des organes de l'État. On a vu les photos. Tout le monde a vu ici les photos des nervis qui descendent d'une 4x4 alors que ça appartient à un ministère. On a vu des nervis qui quittent le, avec la projection tout On a vu des nervis qui quittent le siège de la PR armée et qui vont vers les, vers les lieux où se, se passent les manifestations. Tout ça, c'est une forme de légalisation de la violence. Et il y a une impunité derrière parce que les nervis là, tant que cela continuera, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Maintenant, va, vers quoi on va tendre On va tendre vers une situation où, puisque maintenant, ceux qui sont chargés de nous protéger sont en train de nous frapper, de nous maltraiter, de nous tuer, les gens vont commencer à faire des règlements personnels. Et malheureusement, c'est ce qui c'est ça qu'on entend. Et ça, c'est une situation extrêmement grave parce que les règlements personnels vont engendrer un nouveau cycle de violence, beaucoup plus élevé que les cycles de violence auxquels on est habitué actuellement au Sénégal. Si vous regardez bien, mars 2021, le niveau de violence de mars 2021 et les événements de juin, mais les choses ont changé, la violence a augmenté. Elle a, augmenté, les dégâts ils ont été multipliés par deux ou par trois. Tout ça à cause de quoi À cause d'un problème de troisième mandat. Un problème purement de la politique. Tout ce qui se passe actuellement dans ce pays, c'est de la politique. Ce n'est pas une question de jeunes mal élevés ou de jeunes violents, mais c'est une question politique. Il y a une frange des politiques, de, de politiques dans ce pays qui essaie de museler pour pouvoir déployer et faire ce qu'il veut dans, ce qu'il veut comprendre, ce qu'ils veulent. Et ça, ce n'est pas normal. Pape Abdoulaye Touré a été pris, il a été torturé, on l'a envoyé, il a été ensuite euh, déposé à la gendarmerie. Euh, pour, il a fallu que ces avocats se déplacent pour, pour, intervenir, pour qu'on aille le, soigner. Quelqu'un que l'on dépose, déjà, des gens, je ne sais pas qui l'a attrapé, on ne sait pas qui l'a attrapé, qui l'a déposé là-bas. Si ce sont des policiers, Bon, c'est entre euh, Si ce n'est pas des policiers que sont des nervis qui l'ont attrapé, mais les policiers leur doivent leur demander, mais celui-là, il vient d'où Pourquoi il est dans cet état Malgré cela, ses euh, blessures, on l'a pris, on s'est rendu compte qu'il a une fracture au niveau du poignet et il a une double fracture au niveau de la jambe. Et pourtant, il est, tout, il est à la cave. On attend de voir est-ce qu'on va le notifier son arrestation ou bien est-ce qu'on va le passer euh, sous contrôle judiciaire ou bien on va le relaxer. Il y a le cas d'Anita Diop aussi tout ça, c'est aussi dans le cadre des Mais elle, dit que c'est euh, bon, elle ou il, on ne sait pas c'est qui, elle ou il, est sur Internet et dénonce les gens. Et bizarrement, à chaque fois qu'elle indique une personne, ou bien qu'elle met l'adresse d'une personne ou son numéro de téléphone, la personne est arrêtée par la suite. Bon. Ça aussi, c'est très dangereux parce que, comme l'a dit mon camarade, le jour où son identité sera dévoilée, il, se peut qu'il y ait un règlement de compte, que des gens qui ont des contentieux personnels avec cette personne et régler leurs personnellement. Et on ne doit pas arriver à ces situations-là. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter dans ce pays si on avait, utilisé, on avait été, beaucoup plus mesuré. Mais malheureusement, on dirait que chaque fois, on essaie de mettre un nouveau camp, on essaie d'entrer dans un nouveau cycle de violence beaucoup plus fort que, dans le, que le précédent. Et ce n'est pas normal. À ce rythme-là, d'ici la fin de l'année, on sortira plus le, pays, tout le monde sera en train de se battre. Il y aura des émeutes partout. Parce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas été encore réglées jusqu'à présent. Elles sont en suspens. Et la population attend que, ces questions soient réglées pour voir comment elle vont réagir. Il faudrait qu'on descende d'un cran et qu'on essaie de régler ces, problèmes. Maintenant, concernant les manifestations du F24, le F24 a été mis en place pour, répondre euh, à quatre, problèmes il avait décidé d'organiser euh, un, meeting aujourd'hui au niveau de la place de la Nation et demain une marche pacifique euh, sur la VDN. Hier, le préfet a fait plusieurs déclarations, dont sa dernière euh, a été faite euh, au journal de 20h sur la TFM, où il dit que la manifestation du vendredi est interdite. Il donne plusieurs raisons, comme le télé, qu'on sort de troubles violents et tout ça. Bon, le préfet, c'est le préfet. Donc, maintenant, Mardi, ce samedi, la marche, elle, si je ne me trompe pas, elle est autorisée. Les gens vont faire une marche pacifique, peut aussi faire une commémoration pour les victimes. Euh, le F24, n'a pas vocation à, être, à entrer dans la violence. le F24 essaie de régler des problèmes politiques et des problèmes de liberté. Le préfet, ne doit pas utiliser certains moyens ou bien utiliser certains prétextes pour pouvoir le bloquer à chaque fois. On a vu la dernière fois, euh, lorsque, au niveau du siège Malik Gakou, lorsque, il eu, lorsque le F24 voulait faire euh, son, truc, son débat, on les a demandé de sortir. ils ont envoyé les gens, la gendarmerie pour les faire sortir. Pourquoi Pourquoi cela Pourquoi on essaie à chaque fois d'interdire ici, non, vous allez faire ceci, non, vous ne faites pas ceci, vous allez faire ça Pourquoi mon camarade a expliqué quels sont, sous quel régime on doit interdire une manifestation. Je ne pense pas qu'on soit sous ce régime-là. Parmi, parmi, dans les quatre critères que le F-24 essaye de, de combattre, il y a les détenus politiques. Le COLIDEP a longtemps lutté pour la libération des détenus politiques et l'Union fait la force. Donc aujourd'hui, on a décidé d'intégrer le F-24 afin de pouvoir coaliser nos forces et d'aller de l'avant pour, pouvoir régler les, problèmes, quatre thématiques et aussi parmi lesquelles il y a les détenus politiques. Parce que le, le de plus s'est spécialisé dans la, pour la libération des détenus politiques. Donc, euh, j'ai énuméré tout ce qu'on avait à dire. Bon, maintenant, je pense que si certains de mes camarades euh, veulent prendre la parole, c'est le moment de le faire. Donc je vais demander à notre doyen Gadio de venir prendre la parole. Et, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour tout. masawu te di jaale ñi nga xam ne ne eh, eh, yàlla génne leen fi jële leen fi ak ñi nga xam ne ñu ngi gaañu ak ñoo xam ne dañ ñu ngi leen téye eh, sama waxtu gudd nag mais dama yaakaar ne Sénégal la ma daan seetaan ci yeneen tele yi dund ko Sénégal fan yi yaakaaroon naa du Sénégal laa nekk quoi

et je ne peux pas comprendre des jeunes innocents ñu leen di tour, ñoo xam ne amuñu yar dara amuñu yar amuñu yat amuñu weñ amuñu dara nga leen di tuer froidement et puis la police se permet de mentir si je dis ça c'est par rapport à des faits man li may wax fee laay wax parce que dañuy wax loo xam ne amul ñu andil leen loo xam ne contre-vérité la man j'ai un, un un un frère qui a été qui a été tué Baba Kana c'est un frère Ablaye Camara lan lañuy wax vidéo baa ngi nii vidéo baa ngi nii dama bëgg ngeen kii ko ce qui ont fait ça c'est qui ñan la dañuy waxante dëgg dañuy waxante dëgg li li ñan la c'est pas un montage du du montage dañuy waxante dëgg te yàlla tax lii yoon la on se permet de dire que ne ay ay nervi ay nangam dangam. dama ne ñun dañuy alerter dañuy alerter dañuy alerter 23 mars 2022 comme ne sama camarade ni ñu ko waxé dañuy japp rond point rond point euh, ministère de l'intérieur lañuy japp jour bobu yóbbu ñu police police police euh, euh, plateau. xanaa kay buñu bo don bo defon naka su dul sax nga daw dugg police sax yow tu tu es à l'abri et la police nous a livrés à ah, des personnes xaw la police le nervi le lan la à des heures tardives fu man lañ ma Nous suñu après on se permet aujourd'hui de wax ay Nous amon na ba nous wax ji wax ji wax ji bu duñ ko duñ ko tourner tourner gis nga bu bëgg am Sénégal c'est lui qui a la clé ëllëg ci biir yow man xiyaam yàlla moom lay laaj noo téye woon Sénégal nañu waxante dëgg te yàlla tax nañu waxante dëgg te yàlla tax ku ci nekk sa njaboot da dinañ la doo sàmmee woon sa njaboot dinañ laaj Macky Sall noo sàmmee woon Sénégal il faut dire la vérité c'est le seul responsable bët yi mu am man aw ma ko gët yi mu am man aw ma ko tànk yi mu am aw ma ko il est très bien renseigné xam na dëkk bi lan moo ci baax ak lu ci baaxut donc il faudrait que ça s'arrête il faut pas il faut pas sacrifier nos gens là non non non non camarades comme ça ñun dañuy yag xex Sénégal ñun buñu xexulon Macky Sall du top, parce que du tay la ñu sur le terrain té ragaluñu nous..! ragal luñu bañ rek nous dañ japp nga mais pour le Sénégal pour la bonne cause nous sommes toujours là nañu waxante deug nañu waxante deug nañu waxante deug amul kenn kuñ fay Pape Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye Touré xam nañu Sénégal c'est faux il faut dire la vérité la même chose que Beyna nous nous avons partagé de combat y a des et nous toujours dañuy taxaw Vous n'avez wax waaw dañuy mais il faut arrêter il faut arrêter d'utiliser les gens. et puis il les forces de l'ordre mais nous ñiy frères, frère tu peux faire tu peux tu peux tu peux mën nga mën nga mën nga def li ngay def mais bu ñu demee ba xale boo xam ne amul dara nga jàpp di ko dóor di ko kii amul arme amul dara nga kii mais c'est inhumain on je ne parle pas de qui mais doomu aadama sax loolu waru ko def vous m'excusez je parle avec le cœur parce que dafa am loo xam ne dund naa ko gis naa ko keroog dem na hôpital Ma Abdou gis ay boy yu ñu andi foofu yoo xam ne à situation bu doy waar mais pourquoi à cause des mensonges wala yu il noonu ci dëkk tax le Sénégal ne mérite pas ça le Sénégal ne mérite pas ça Sénégal Li Macky Sall jiwu ñu le lii dañuy waxante deug te yalla tax ku dé sa bàmmeel ku dé sa Bamel. et on se permet ci toll ci deuk bo xamné ne nit sax bu la bañé bu jëlé sa photo ak sa numéro de téléphone def ko ci ki ñi ñëw jàppale pourquoi dañuy waxante deug dañuy waxante dëgg te parce que lii lii raam baaxut lii nekk ci dëkk bi baaxut mën na ma dal mën na dal keneen ak keneen ku toog sa kër rek yaakaar ne tu es épargné da nax sa bopp. parce que ñun bi ñuy dóor man man j'ai des parents j'ai des personnes que je connais dañ dañ doon reetaan yow fan lañ la sànni mi ngi nii ñooñu seen mbokk wala seen kii ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo victime dëgg nañuy waxante dëgg te yàlla tax nañu taxaw ci dëgg dëkk bu amul dëgg du dem fenn. deug bu taxawul du ñu dem fenn il faut arrêter de manipuler les gens Sénégal musuñu dégg ay affaire waaso fii musuñu fi dégg ay ay affaire fii nga bokk wala fii nga bokk wala kii musul am ci Macky Sall la am parce que je suis très bien placé du âge bi ma am fekkee naa am na loo xam ne fekkee naa ko mais pourquoi il faut qu'on qu'on arrête quand même nañu waxante dëgg nañu ci jàmm jàmm bu ñu bëggee jàmm dellu si dëkk bi nañu teg mbir mi ci yoon teg ko ci dëkk li nga xam ne dañ ko war a def ñi def ko c'est pas pour nga légitimer benn affaire ngay ngay am ñenn ñoo xam ne da leen di utiliser di di di di rencontrer di euh, euh, sos loo xam ne du dëgg pour nga mën a légitimer li ngay def dëkk bi ñun ñi ñii ñu xamante nañ bu baax a baax yàgg nañu xeex yàgg nañu xeex te yàgg nañu bañ. aujourd'hui ñi nga xam da ngay bañ nga jappalé dóor leen wala ki nga yaakaar ne di nga tax da nga tax ñu taxaw lool loolu taxu ñu taxaw Pape Abdoulaye Touré c'est pas un terroriste c'est pas un nu ñu ko waxee c'est pas un délinquant dañu waxante deug am na ñoo xam ñu bari ñi ngi université fi amuñu won duñu ñu lekk Pape Abdoulaye Touré il a fait en sorte que ñi mën leen ñi mën leen ñi mën leen ñi mën leen euh, su euh, ñi ñi mën am am euh, mën a lekk dañu waxante deug am ay étudiants yo xam dañuy joggé fu sori ñëw amuñ fu ñu dëkk par rapport ak ak ak su euh, moom satim mu mu lancé cagnotte wala leneen ak leneen képp ku mën a dimbale ay étudiants nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg te yàlla tax nañu waxante dëgg te yàlla tax il faudrait que lii mu arrêté et pour mu arrêté kenn rek moo yore caabi bi mooy Macky Sall li may wax nii je bu yeboo bu ma génnee fii ñu jàpp ma wala ñu rey ma

parce que loi bo fi andi bo xamné ne baaxul ñun dañuy taxaw wax bu sénégalais génnee ñi génn bu ñu génn ñu génn raison de plus 23 mars ñun ñep liñu japp do dóor bi ñuy def loi le 25 juin encore le 25 juin loi sur le terrorisme ak yoy ñun bokk nañ ci ñi japp parce que xam nañu li baxul bi ñuy wax ci loi parrainage aussi génn nañ ñun yoruñu parti politique. mais xam nañu ne li Sénégal li charte Sénégal li du li jëmalul Sénégal kanam.

keroog yombal xiyam ku ci nekk danga am part de responsabilité ku ci nekk danañ la wax ne bi mu tolloo fii lan nga ci def te nous nous prenons notre responsabilité et nous n'avons avons pas peur nous n'avons pas peur parce que dëgg rek dëgg yàlla rek ko kii nañu bàyyi ñi jàpp yow comment se fait que nga dóor nit ñu war ko faj nanguwoo sax ñi ñëw andi ko kooku c'est inhumain ça man dama ko gis quoi parce que parcelle là kii

ku ñu ku suñu ma laalee tamit keneen la laal parce que Sénégal le Sénégal est petit dafa am benn socle social boo xam ne suñu mag yi teg nañ ko suñu maam yi def nañ ko donc il faudrait pas qu'on accepte ñi ñi koy yàq et Macky Sall est en train de briser ça il est en train de briser ça c'est pas le Sénégal la li li ñu ci loxoom Sénégal bu bëgg bu bëgg a dem nañu ko teg ci loxoom nañuy delloo Sénégal bu baax nako dello delloo nañ ko dello nañ ko dello Sénégal bo xam bu baax doomu sénégalais bu bu bëgg a bu bëgg diriger Sénégal charte yi boo ko nga teg ci nga ki bu ko bu ko yalla defee fi sénégalais yi ñi and and ak yow. loolu buñ ko defon mom muy du fi tok buñ ko defon mom du fi tok parce que dañuy bok ci ñi xex pour démocratie taxaw pour àq ak yelle taxaw mu am ay ay ay rot am ay donc lolu gis nga lolu nañ ko nañ koy xel nañ ci c'est très important ngeen djegal ma parce que limay wax sama xol koy sama xol parce que lo xam dama ko dama ko et nous nous ne méritons pas ça le Sénégal c'est facile à diriger li am solo mooy tegal lépp ci dëgg développement développement bu la ci kenn ndax du ay tabax ay bâtiment de une justice équitable inégalité sociale bi dañ loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy tax dëkk dem loolu rek la amul leneen moo boo bëggee ku ànd ak yow lu mu def baax na ku àndal ak yow di jàpp ko ci ay kii loolu lu ci gën a bëri lu frustration lay andi ñu ci gën a bëri dañuy dañuy dem contre yow na teg justice bu jaar yoon boo ma tooñee bu ñu demee fële nit ki ñu jox la jox la dëgg mais si c'est pas le cas bu boobaa lii rek mooy am et c'est et la def je vous remercie asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, gannaaw bu ñu sante yàlla di julli ci yonent bi du nuyu ñi seetaan yëpp ci réew mi ak diaspora bi di nuyu tamit waa Colideb du nuyu tamit suñu mbokk journaliste yi tey nag moom ku waxal yàlla mooy dëkk bi nit ñi jaaxle nañ nit ñi dàmm nañ tàyyi nañ parce que dañoo nekk ci moment boo xam ne ne yaakaaroon nañ ne lépp dina xew ci yeneen réew ba mu des senegal te ko indi mooy impunité gis nga nit dëgg alalu yàlla la képp ku ñàkk bakk bakkanam ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla na la yàlla xaare àjjana képp ku am métit ñu ngi lay ñaanal métit gi dal mais lan moo indi métit gi li ko ëpp mooy impunité mooy boo bokkee ci buur sàll buur sàll la ñuy wax buur buur la sa majesté Macky Sall bu APR buur la parce que réew mi seetlu nañ jikko buur lañ ko yore te buur dégg naa ne buumu njaam nga dog na mais dañu ne li ngeen wax esclavage kañ lañ ko abolir 48 ba léegi 48 esclavage ñëwaat na Sénégal depuis 2021 ku waxal yàlla xam nga ne esclave la ñuy dund ñii ñu ngi leen chaîné ñii ñu ngi leen defal ay manot ci tànk ñii ku wax ñu jàpp dóor ku wax ñu jàpp yóbbu te lépp lu ko waral kenn amul problème ci ku yàq gis nga ku yàq alalu jàmbur wala nga sàcc alamu alalu jàmbur wala nga def loo war te def nañ la teg ci yoon Sénégal jàppuñ na ne koo foo mënti bokk boo yàqee nañ la teg ci yoon loolu amuñ ci problème parce que nag Sénégal Sénégal lu ñëpp la mais na na fekk ne ne yoon yoonu maanaam ñëpp yoon ci yoon yem ci yoon mais leer na ne tey boo jógee ci benn côté dem ci beneen côté lu la neex defal sa ginnaaw bandan te loolu la li ko gën a indi mooy ci nguuru buur sàll lii ñuy wax nii lu nekk yéen koy dégg ay force occulte ak ay force nangam ak ay force nangam lu nekk yéen a koy dégg ci dëkk bi mais loolu ñuy wax bu dee lu koy firndeel fii lañ koy waxee amut lenn loo xam ne ne ci ñi lakk du ñoom euh, Cheikh Baara Ndiaye nee nañ dañoo lakk këram dañoo lakk otoom dañoo nàng lakk leneenam ak leneen nañ ñu indil kenn koo xam ne ne dinañ wane ne kii moo ko lakk pour pourtant war nañ ko wone képp ku nekk ci beneen côté boo yàqee. nañ la jàpp teg la ci yoon mais képp ku nekk tamit ci buur sàll boo lakkee wala nga wax loo war te nañ la teg ci yoon mais ñu di gis lu mu toll ni Ahmed Suzanne kamara wax publiquement nañu rey nit nañ ko déloger nañ ko def dara dara fekk ko ci parce que lan la parce que dafa nekk ci woon nit taxaw publiquement ne wooy yàqu naa jaañ na ko yàqoo goo de parce que ci buur sàll nga bokk ñu ne woon dafa euh, jabet bu yéeg waa jabetu 2 ans trois ans du wàcc ba léegi xanaa bu jabet wàcc tun ba léegi moom xanaa dem na morgue ba jabetu deux ans trois ans du waaj du loolu lañ waxoon ana jabet ba kon jabet bi day yéeg rek te du waaj gis nga réew mi nañu arrêté li ñuy arrêté mooy nañ teg lépp ci dëgg ci yoon Sénégal ñépp a ko bokk amuñ beneen nationalité bu romb nationalité sénégalaise du dëgg ñun moom benn passeport lañ yor benn nationalité lañ yor am na ñoo xam ne ne bu dëkk bi ñàngee ñu génn bañu fi ñun nag amuñ feneen fu ëpp Sénégal Sénégal jàmm lañ fi bëgg parce que Sénégal suñu maam yi loolu lañ fi dogaloon loolu lañ fi ñaanoon keroog dama gis buur sàll ñu wane ko ci VDM 3 bi muy ree ñu ne ko waa da nga bëgg troisième mandat eh, mu xaqataay ñu gis keroog bi ñu jàppee président Ousmane Sonko mu génn di naa ni ko ko di ree léegi nag Diagne dafa ne woon bu na ñëpp ree bu kenn reewati na ñëpp guuxi lex ñàngal na ñëpp guuxi lex parce que moom li ko naqadi moom moo ñu neex bu kenn reewati parce que ñun talatuñu ree talu ñàngal ak guuxi leex lañ yem parce que suñu plus de 600 700 détenus ñu téye leen ci kaso bi bu kenn reewati ñoom ñoo tala ree ñun talatuñu ree ñun moom tali ñàngal ak guuxi leex parce que li ko naqadi moom moo ñu neex li ko neex moo ñu naqadi lu tax mu naqadi ñu parce que yaakaar gi ñu amoon ci moom daf ko tas parce que bi biñ koy jox réew mi wax dëgg yàlla ku waxal yàlla dañu amoon yaakaar ne kii. li mu soxla ci réew mi mooy teg ko ci charte yi parce que ki nga xam ne ne fépp foo xam ne ne luy naqadi àdduna wala luy xéewalu àdduna yàlla jox na la ko jaar nga ci naqar jaar nga ci souffrance jaar nga ci xéewal kon bu nekkee yow mënatoo téye réew mi ci jàmm kon lu ñuy mën a waxati gis nga ku waxul dëgg wax gémmiñ gu waxul dëgg ñu ne wax safaan wa dëgg alalu yàlla la képp ku nekk ci côtéem lu la neex nga def nañu rey nit ñi nañu gëmm te dóor nañu xool te dóor ma ne ku leen dóor xool leen ko ñu ne nañ gëmm te dóor kilifa dina taxaw ñu ne ko na nga gëmm dóor Cheikh Ahmadou Bamba bi mu jógee géej pourtant mënoon na bañ a dem géej te bi mu ñëwee lu mu ci teg jéggal naa ñëpp gis nga kilifa day yërëme kilifa day jéggale loolu moo tax ñu ne kilifa kero dama dégg benn waay euh, nu mu tuddati euh, ñetti kilifa ci réew mi ñu génn dina li fi xewoon du dara nangam nangam xoolal dëkk ay nit dee ci lu mu trente morts ñiy gaañu ci ñiy yàqule ci économie bi taxaw nërmeel loo xam ne mos ta xew Sénégal man ba ma dalee gis ba léegi bu ñu juddoo yàggul mais mosuma gis char de combat ci euh, euh, euh, manifestation ay soldats génn loolu amul ci ah, Sénégal boobu ñun ñu ngi koy dóor a gis kon lu ko waral ñu génn ne loolu du dara xoolal loolu noonu yow ñu jox la cër. nga wara taxaw taxaw gis nga am na ñoo xam ne beuy sa mënuñ ko jité ñi ñu jité ay xar sa mënuñ ko jité parce que bo jité ay xar wala bo jité ay nit amna lo xamne bu deug joté wala bu safaan amé da ngay taxaw rafet ñaawlu li xew li rafet nga defar ko djéggelu lolu moy lolu moy lu honnête ñu gis ay kilifa wax publiquement ñu ray nit ñi yoré bal ngeen na bal reyu ko ay num arme arme blanche ñañu reyle génnee na lii amut bal baa ngi nii loolu gàcce la tal li defe naa ne waroon na xew fépp ba mu des ci nguuru buur sàll léegi nag buum bu jàmba dog na il est temps ku nekk jël sa responsabilité li ñuy wax ku nekk na jël sa responsabilité bu kenn wax ne ne lii raam yeggseegul ci man yeggsi na ci ñun tey kenn euh, internet bi ñu coupé woon ci ñëpp la ñu doon wax sama yoon nekku ci seen yoon nekk na ci kon xamal na la lay raam bi ngay yaakaar ne du yegg si yow dina yegg ci yow te loolu nag il temps nag ñu téye ko yemale ko ku nekkul ci yoon nañ la teg ci yoon ku nekk ci yoon nañ la teg ci yoon loolu mooy dëgg parce que loolu mooy Sénégal te Sénégal boobu lañ soxla di wax ne nag sénégalais nañ jël seen responsabilité ci jafe-jafe yi ñuy dund parce que nag ragal ragal rab yàpp yàlla la bëri na ñu tëdd ci armeer yi bëgguñu woon tëdd ci armeer yi mais dafa jot ñu tëdd fa am na ñoo xam ne ñu ngi dund leer na ne su naqadee ba sunu borom li mu bind ci ñoom kenn mënu ko def bakkan bu ñëm dinu dinam ñam dem te bës bu nga wara dégg nit mënu la ko ñaanal nit mënu la ko wiral nit mënu la ko kurusal bës bo wara dund kenn mënu fexé ba do dund kon nak ni nit ñi gëm yalla ta ragal yalla gëm yalla ak ragal yalla bobu nak loolu mo dess ci ñun ñun dañuy soob rek ñi dina ay julit la ñi dina ay kat fekk du ngeen ay gëmo leen ko gis nga yalla ku ko gëm do ragal do tit. parce que nak alalu eh, manam yalla deug la fi nekkal te ku nek ci deug jalu ngay ragal mais nak ku yak nak wala nga sacc wala nga def loo war te def nañ la teg ci yoon à ce point ñun ay sénégalais lañ nekkuñ ci dëkk boo xam ne dañuy bëgg nit di yàq wala di nàngam ñu mel ni comme ñun dañoo far fenn déedéet Sénégal Sénégal lu ñëpp la ku yàq nañ la teg ci yoon mais nag na fekk na ne impunité ba yem ci ñëpp képp ku def loo war te def nañ la teg ci yoon loolu mooy dëgg mais ku nekk ci bu bi euh, côté Macky moom sa ginnaaw ba ndang léegi nag xam naa li ñuy wax makki nag bu APR comme moom article vingt euh, xam naa article quatre vingt moom dafa mel ni ñun la ñuy wër mais ñu nekk ci moom moom seen ginnaaw pandang dañ ne loolu lañ ci amoon lu ñuy wax di wax ne ne na ñëpp guuxi lex ñàngal bu kenn merati bu kenn reewati na ñëpp mer parce que réew mi ci li ñu nekk ëpp na mer sunu six cent et quelques personnes ñu jàpp leen ci ay détenus ñii ñu damm leen ñii ñu fracassé gis ñoo xam ne dañoo yor ay yet di topp ay nit keroog vidéo yi ñu gis ñu génnee ci yenn côté nit taxaw publiquement ne ñi ay xaw ma nu ñu tuddati ay force occulte lañ war nangam waa léegi nag ñi yore yet ànd ak force kii yi nag euh, force de l'ordre ñooñu ay lan lañ man de policier ak yet moom maa ngi koy door gis Sénégal bu dee ay policier la nañ nañ ñu ko wax bu duñ policier nañ leen teg ci yoon loolu mooy dëgg gis nga ñoom bu ñu génnoon wone ñi nga xam ne dañoo nekk ci beneen côté comme ñi ñuy wax nervi ñu nervi fu mënti bokk kenn du ci ànd sécurité xam nañ ko parce que ku ànd ak sa leader di nga ko sécuriser ku ànd ak nit di nga ko sécuriser loolu amul problème mais nag nga bañ a dal ci nit ñi mais yor ay jaasi yor ay leneen ñu gis ci ay 4-4 ñu rangaloo tegaloo di dóor nit ñi di yàq nit ñi loolu moom duñ ko mos a lu loolu lañ ci amoon lu ñuy wax. waa asalaamualeykum wa rahmatullah bu ñu waxee ne wax goo xam ne ne safaanu nag ñu xam ne ne suñu xol yi moo jeex parce que réew mi li ñu yaakaaroon ak ci réew mi daf ñu ëpp doole parce que nag gàcce la ñu toll ne vingt et unième siècle ñu joxoon ko xale bu ndaw yaakaaroon na ne dina defar réew mi ñëpp amoon ci yaakaar ñëpp désespoir te liñ fi gis mooy désespoir moo am ci jeunesse bi léegi nag désespoir boobu dafa am ñoo xam ne dañuy incarner l'espoir l'espoir boobu nag ku mënti doon duñu nangu ngeen ñukay koy xañal wa assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ya yaakaar nañ ni exi nañ ci su ci euh di euh, defaat résumé nek suñu natango yi ñi fi jaar ñep li ñu wax defena ku yàgg suivre yag nga xamné ne COLIDEP dafa mës taxaw di xeex injustice COLIDEP dafa mës a taxaw di euh ay détenus politiques COLIDEP dafa yag taxaw pour xeexal Sénégal pour xeex ngir démocratie sax Sénégal ci lolu motax tay ñu ñëwaat encore une fois pour appeler à la raison le président Macky Sall parce que li yëpp du tay bu ngeen sétlo encore une fois COLIDEP yag na di ñaxtu yàgg na di génn point de presse di dénoncer injustice bi police bi di teg ci kaw askan wi yàgg na di génn di dénoncer ministère de l'intérieur seen taxawaay ci par rapport ak askan wi bañ ko doon wax ñenn ñi dañoo yaakaaroon ne dañuy caaxaan ay activiste lañ dañuy ruube wala ñun xeex moo ñu tax a jóg yàq moo ñu taxoon a jóg mais boobu yëpp dafa fekkoon ne ñun gis nañ lii di ñëw te dañoo artu woon mars 2020 22 dañ ñoo jàppoon torturer ñu dóor ñu sànni ñu ci àll bi ay xaaji guddi ba ñu di wax police ci boppam dafa euh, dégager ay responsabilité am donc li mu def ni du lu bees day firndeel rek ñun la ñu doon wax lañ doon naan liy raam te ñag ba la jëm egsi na te ba léegi pareegul parce que kiñ ko seqal pareegul suñu réew dañ ko ko joxoon ci ak teranga nañu ko delloo ci ak teranga ñun suñu dung kotegi, ko teggi askan wi la andal àndal askan wi nee na Macky Sall doy kon Macky Sall na dem bàyyi suñu réew ci njëkk ak teraanga préparation bii yépp nag lenn waralu ko lu dul bëgg a def troisième mandat xam ne ñenn ci askan wi taxaw nañ temm ne duñ ko ko bàyyi parce que jàng nañ xam nañ il son conscients mu ne ñooñu laay njëkk a balaa maa dem ci li ma bëgg muy troisième mandat ñooñu ñëpp ki ci mel ni Abdou Karim Xurum Xaq ku ci mel ni Cheikh Omar Diagne ku ci mel ni ñoom Ousmane Sarr ku ci mel ni Nit Dof ku ci mel ni moodu Mbuub Bayna Gueye Anibal Jim Amija, Fala Fleur ak nit dof ak képp ka ne ne réseaux sociaux muy ci sa message di yee askan wi ci démocratie di askan wi ci luy mal gouvernance ci jëm ci côté Macky Sall mu xat-xatal la euh, sosal la tëj la ci prison bi les collectifs collectif pour la libération des détenus politiques ont nañ di artu askan wi que il est temps pour nous ñu parce que c'est trop te ñu réseaux sociaux yi nak ak plateau yi di dara xewul ci réew mi dara xewul ci réew mi nit ku normal benn bakan bu faato rek dafa a poser problème qu'on se dise la vérité benn bakan bu rot war na laa tiitloo war na poser problème waxatuma une vingtaine jëm vingt ñu ngi ak ña nga xamante ne ñu ngi leen géej gi mu ngi leen di gokki fan yii géej gi fan yii ñu ngi naan géej gaa ngi gokki kenn xamul ñan la ñenn ñaa ngi ci hôpitaux yi parent bu am doom bu réer demal seeti ko ñenn ñi dañ leen a kidnappé kenn gisu leen kon li leen wan ne lim bi jeexagul ci ñi dee askan wi nag il temps ñu jóg il est temps ñu jóg parce que trop c'est trop moom li mu rey daf ko xeeb ñun bu nekkoon kenn la ci askan wi sax ñun xeebuñu ko parce que bakkan bakkan la ñen ñi ñu ngi naan xale yi dañuy yàq lan moo waral xale yi di yàq ñiy sàcc lan moo leen yóbbee sàcc donte ñun duñ ko cautionné ñu nangu kuy sàcc ñu nangu kuy yàq ci lu ko neex mais ñooñu ñëpp lan moo ko lal yàq bi lan moo ko lal lan mooy cause yi sàcc bi lan mooy cause yi parce que mal gouvernance moo am nañu nangu benn bakkan nag bu nekkoon moom moo rot ñun xeebuñu ko comme que daf koo xeeb nag nañu abal suñu réew niñ ko ko joxe woon ci njëkk ak teranga nañu ko delloo noonu di woo parents yépp nag képp ku ci deele képp ku ci am doom ju gaañu képp ku ci am yàqu-yàqule amul kenn kuy responsable ku dul Macky Sall moom kese la parce que moom moo yor armée moo yor xaalis moo yor ay nit donc moo yor doole jépp nga nga xamante ne dëkk bi tay fi mu toll ni moom moo am sañ-sañu ne arrêté leen mu arrêté kon nag moom moo ko bëggul bu ay nit di dee ba mot ñaar fukk moom njiitu réew moom moo bëggul problème bi arrêté bu ko bëggoon arrêté na bu yàgg ñu ngi woo képp ka nga xamante nag deele nga ci nañ ko topp nañ ko topp parce que li mu def nii crime contre l'humanité la crime contre l'humanité la comme daf ko xeeb crime contre l'humanité nañ ko topp que justice soit fait pour ces morts te aussi ñi ñi gaañu ñu ngi ci commissariat yi ñenn ñi dañoo gaañu ci ay bopp ci ay loxo te mënuñu leen faj parce que dañ leen tere seen mbokk ñu jël leen faji ji leen nañ leen bàyyi ñu dem faju ji parce que duñ ay mala ay nit lañ nit nit la bakkan gën ta bakkan bu fekkoon ne kenn ci ñoom waa APR la ñu gaañoon tey kenn waxatu ko donc ngalawaay nañ jox nit di dignitéem delloo leen ko ku ci gaañu nañu la génne ci commissariat dem faji ji la ba nga wér buñ lay topp su fekkee yaa def ñu topp la mais lépp tegu ci yoon encore une fois parce que ñun yoon la ñuy xeex yoon moo tax ñu toog fii tey dëkk bi nañ ko lal ci dëgg teg ko ci yoon ñu bàyyi layam-layam bàyyi njuuj njaaj bi bàyyi intérêt personnel gis na politique bi tënk mënul tënk dëkk bi dëgg ji dafa leer problème bi li ko waral yépp procès la procès bi justice tiire na li muy tiire ba pare wax na li muy wax ba loxo dar gémmin ñi nga xamante ne sax ci APR lañ féete woon yaakaaroon nañ ne waa ji moom moo def justice wax na ne deful mais nañ bàyyi jàmbur loolu lañ ko toppee woon da nga violé woon moom lañ la toppee justice ci boppam nee violé woo léegi nan la lay toppaatee nan la lay toppaatee lu ay caaxaan mais sénégalais ubbi leen seen amul benen deug buñ ñu waxat fi waxaat waji viol lañ ko topé won nee nañ ko demal toppeetuñ la viol waaye il faut ñu am luñ la takal muy jeunesse bi yow ya len influencer bañuy wacc di xeex yow ya len influencer bañu ñu mbaboo di la topp dañ la bëgg té bëgg yàlla moo koy def ci nit. waxuñu pour far mais dañoo sonn il faut ñu wax fi dëgg bi féete par parloowuñu déedéet dañoo dem ba xam ne lii nekkatul nit ki yàlla la te moom bu fàttali ko 2012 nii la fa demee woon ñun nii lañ ko bëggee woon en 2012 kon nañu delloowaat na delloo naar bi xoromam askanu Sénégal mooy naar bi na ko delloo xoromam ñenn ci ñun ay ndaw lañu woon 2012 mënuñu woon xeex mais fekk toog nañ télé di seetaan mais ñenn ñi ñu ci ëpp dañ koo xeexaloon. kon na delloo naar bi xolomam bàyyi li muy def suñu démocratie muñ koy salfaañee bu ñu bokkoon ci dëkk Afrique yu gën a baax démocratie ñu jiitu ci ci wàll bo tey ñun ñoo mujjee ci lan ci ay caaxaan te kilifa diine yi képp ka nga xam ne borom kàddu nga jógal nga wax parce que dëgg ji feeñ na li fi topp yépp ay caaxaan la gémmiñ bu waxul dëgg wax safaan wa nañu jóg wax donte nit ki du dégg mais. jeunesse bi kenn mënu leen a topp jeunesse bi kenn mënul ne ñoom ñoo toor parce que ñi leen jiite dégluwuñ leen faalewuñ leen pour ñoom li ñuy def ni lu ndaw la te xamuñu ne am na lu ko sooxee lañ ko sooxee nag lañ ko lijjanti Macky Sall na bàyyi troisième candidature bii mu jubloo def te bàyyi dëkk bi ci euh, ci yoon mu delloo ñu ko ci njekk ak teraanga ñun bëgguñu troisième mandat askan wi bëggu ko ñun bëgguñu ko troisième mandat askan wi nee na doy na ñun nee nañ doy na kon ngelawaay na bàyyi réew mi ci njekk ak teraanga ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jégalu ci kàddu yu sore yi wasalaam